ku cuunewee nous avons gis une telle inculture démocratique et politique Koku, tahu, ba kenn dellu président Ousmane Sonko président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye duñu ko tontu ndax ils sont sur des enjeux stratégiques Yo xamante franchement nous ñi sax waruñu ko Nous tal parce qu'il y va de notre responsabilité parce qu'on nous a responsabilisés à la tête

ci opposant yooyu da ngay gis ñoo xam ni aussi ndeysaan ay jeunes yoo xam ne ñun xawoon nañ leen naw bi ñuy génn ndax sur le plan médiatique am nañu benn rhétorique comme par exemple Pape Djibril Fall mais da ngay ils n'apprennent pas de l'histoire ou des faits naka ngay demee législative nga le plus fort l'est am près de 50 000 voix Nous ñëw présidentielle deux mille nga am 18 000 voix presque le tiers de li nga amoon nga amaat muy 0,41%. mais xanaa nga jàng ci histoire que bi ñu la defee député ba est-ce que sénégalais yi satisfaire nañ sa qualité de parlementaire vous êtes satisfait non si les sénégalais étaient Ousmane Sonko bi mu duggee même période parce que législatif 2017 juillet 2017 la présidentielle bi ñëw nekk février bu doon deuxième tour lay am mars 2019. donc même période bi la bi juillet 2022, mars 2024. donc même même même même même même même échéance yi la Ousmane Sonko plus fort reste la duggee amul woon sax nombre de voix yi Pape Djibril Fall amone 37000 voix la amone mais bi mu démé assemblée nationale ba taxaw jakarlok sénégalais yi bobu la sénégalais yi xamné député ngi doog am à l'assemblée assemblée nationale loolu moo tax mu jugee 37000 courbe bi def ni yéeg ba 687000 voix yow ngay dem assemblée nationale avec près de 50 000 voix un an et demi courbe bi wàccaat ba 000 voix muy 0,41 pour cent interroger sa bopp est-ce que ci say prise de position est-ce que ci sa qualité liggéey en tant que parlementaire est-ce que tu as satisfait le peuple sénégalais yoon boobu nga jël baaxul boo ko continuer doo am dara ci kanamu sénégalais loolu laa bëggoon wax ci chapitre Pape Djibril Fall kon nak ñom ñëpp muy Pape Djibril Fall mu Bougane Gueye on les invite à des débats publics ragaluñu ko nañ ñëw ñu wax ak ñom ci kanamu sénégalais ñu xam fan la dëgg fété argument contre argument idée contre idée fait contre fait texte contre texte chiffre contre chiffre souvent dañ xam fan la dëgg fété ak lan moy xam-xam aussi kon nak fossoyeur de la république parce que terme boobu Macky Sall la mais terme dafa nice te tey la gën a ak les ennemis contre la révolution antisystémique les ennemis de la révolution antisystémique du changement structurel du pays